almuxtaar weeru muxtaar wi ñëw na yéen waa almuxtaar TV xam ngeen ne weeru muxtaar wi ñëw na sallallahu alayhi wa sallam weer woowu nga xam ne xam ngeen ne ñëpp moom weer wi waaye rawatina almuxtaar TV ndax ñoom ñooy muxtaar turandoo muxtaar borom weer wi laylatu mawlidin nabi ci la nekk kaana li diine sururun bi yowmihi waslihaa wa tawalat busra alqawatifi an qad wulida almustafa wa xaqal hanaa yéen suñuy ami internet nek ci suñu plateforme yéen ñëpp xam ngeen ne muxtaar muxtaar khiratul akhyar muxtaar ci wi ya ah ul awal ah di nga deg ahlan bi shahril mawlidi yow mi nga xam ne yaay yaa abonné al muxtaar di nga dégg ahlan bi saaxibi hada al mawlidi yow mi nga xam ne yaa abonné al muxtaar di nga dégg ahlan bi miladi mawludin bihi kamulat yow mi abonné al muxtaar tv di nga dégg كيف تلخار خيك الأنبياء همزية يومي ابوني المختار دينا ديك دلائل الخيرات يومي ابوني المختار دينا ديك بوردو يومي ابوني المختار تي في وعينك دينا ديك وسيلة المقاصد يومي ابوني المختار تي في دينا ديك ahlan bi chahril mawlidi di nga dégg innal fuaada di dinga dégg woy yu neex yi nu woy muxtaar ci biir al tv guddi gaa ngi noonu mooy guddi gi nga xam ne guddi jàmm guddi teraanga guddi gi nga xam ne moo nu indil waa bi mu juddoo dafa set taqul deret taqul meret xetam ga neex jëmmam rafet ba tam ya tusngal moo ko war al tv falaa far